njëriñ Macky ci benn bokk ak ci parti bi amul ci jaar-jaar bi ak ci jëmm ji ak ci taxawaay bi kon remplacer Macky dafay xaw a jafe wutu Macky ci ak bopp réew dafay metti dafay jafe lool mais lu koy yombal mooy ñun ñëpp ñu xam ni ki ñuy fal de le vingt cinq février Macky la le 2 avril bés boobu dana am Macky Sall war a génn pale war a joxe caabi yi dama bëgg jour boobu am sa plus grande victoire bi Moussa. muy dugg ci pale ba muy dugg mu joxe caabi yi gars yi mu génn kii ko remplacé gunge ko ba këram Sénégal gi ànd.